Alors, euh, on m'a atteint mystiquement, on m'a sur plusieurs plans. C'est-à-dire que, euh, voilà, je vais un peu parler en wolof et je reviendrai ensuite en français et en anglais. Parce que, euh, voilà, je suis suivie de partout dans le monde. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ne parlent pas français, il y a des gens qui ne parlent pas wolof. Mais je vais expliquer dans toutes les langues. Alors, déjà, je Je suis les langues, Je Donc, actuellement, je suis Euh, maa ngi koogoo sama sama sama samay dëkku maam liñ naan euh, boo xamatul foo jëm da ngay dellu fi nga jóge donc damaa dugg nànk daawu nànk dem samay maam ñu dugal ma ci ay xàmb sang ma ba ma ne toog ñu toccaaral parce que nee naa leen koo xamul luñ ko boote rek ko woowee ee eh, loolu mooy base bi teg ci ni que fii ñëpp am ay mbokk fii amul kenn mam dof bi nga gis ci mbedd bi sax am na papa am na yaay am na ay mbokk da di ko rek peut dof bi nga gis ci mbedd euh, mbokkam dañoo jugul ci ñoom dañ koo dañ ko dañ ko sàggane mais man duma xale bu ñuy sàggane dama am jom teral sama yaay teral muy gaañu daf ma ñaanal sama loxo bi ñu la gaañoo ñaanal na ma képp ku ma jur sama nga ñëw bii nabu euh, nabu kebe yow lu yàlla ni gën sa yaay dafa sëy dafa lu ma neex dama lay dénk benn affaire euh, euh, li sa yaay sëyee kër gi na nga sëyee noonu sama papa loolu la génn àdduna ne ma dénk naa la njaboot bu dénk naa naa la say say naa la say te ba ma ko dénkee ba tey maa ngi ci mosuma si wàcc kon man lu ma dal rek dama naan yàlla la parce que yalla mo fi nek samay non liñ bëggoon moy ma ñàkk couleur ma def noir et blanc xam nga triste ñi yéene mo ma dee ñi yéene mo def mais nee naa leen yàlla moo fi nek té bu yalla ne waaw lépp fay changé té da di que instant yi waxuma la waaw ne waaye yàlla dafa tamponé caché ne xale bee fi ne dëgg neexul donc pour samay fans ñu tiitoon ba xam na bu ni non maa ngi ci jàmm

parce que gëm naa ni que sama xol moo ma génn ci situation parce que dafa metti ay groupe nit juk di la xeex dafa metti sa ex jëkkeur di la xeex parce que bëggu la ñaan damay jox damay man damay wax li am sama ex jëkkeur juk di ma xeex parce que tamit ñak ku melni man est ce que du est ce que est ce que do leen ma xol ñak ku melni man ci li dafa metti parce que da ngay tok sa xol du neex nga ne ah man de ñak na princesse ñak na xalé bu rafet ñak na xalé bu mol ñak na ko xamné seriously tous les, tous les hommes rêvent d'avoir une femme comme moi. Belle, grande, intelligente, surtout une femme travailleuse et ambitieuse. Donc, c'est pas facile pour mon ex-mari de me perdre aujourd'hui. Donc, je lui fais un coucou. à ah, euh, s'il te plaît ma parce que right now I'm Mrs et franchement euh, c'est possible tu vois mais on va rester très professionnel moi je suis très professionnel on va rester très professionnel dans le sens où euh, un nous partageons certes une entreprise on est d'accord mais je t'apprends aujourd'hui en direct l'entreprise moi je la dissoudre c'est-à-dire que li ñu bokkoon mag yow muy SNB yi dama koy donc le notaire il est au courant j'ai appelé mon notaire je lui ai dit écoute je dissous l'entreprise C'est les plus nga am ci entreprise bi sama avocat dina le contacter nga récupérer ses biens les femmes fa am Je pourcentage nga jël ko man damay tasse entreprise parce qu'aujourd'hui je suis arrivée à un niveau où j'ai pas besoin de m'allier avec qui que ce soit pour avancer et puis comme sama jëkkër tamit euh, Google, moi, am X, Y de la relation avec toi et je suis de toute phase avec lui parce que li nga ma def C'est métti yow personnellement dafa métti xam nga man xam naa samay mbokk xam la parce que gis nga njaw dans la vie bul forcer parce que yow tu es ci sa ca kaw ba ci suuf man dama jum ci sama casting mais dama jàpp ne que peut-être yàlla mu ne woon jaar jaar la sama diggante yow et j'ai assumé la du début à la fin j'ai toujours été positive avec toi mais aujourd'hui je suis passée à autre chose Je la waaye faire di plateau de télé avec sama tour parce que je suis en mag yow jeex na jeex na entreprise bi ngay toog naan directeur la dama koy tas xam nga su ma tasee entreprise maa ngi yow jeex na kon loolu ça veut dire que jeex na jeex na amatul dara donc ça c'était l'épisode précédent di wax Mariama bu dijaay ni ko Mariama def nga lu ne def nga lu ne te man dama la yërëm en tant que femme parce que li gën a métti ci jigéen mooy ngay sëy sa jëkkër xelam nekk ci keneen dafa métti mais amal courage s'il te plaît te nga dalal sa xel te ngay wér alhamdulilah lu bëri ngay wér astafirlah parce que li nga def yaa ko xam bu dee def nga ma xam nga bu dee defoo ma xam nga mais man jël naa lépp li ma mës a def ci lu bon delloowaat la ko yow delloo ko sa njaboot te nag bool la ak yàgg je te laisse avec le temps bool ak yàgg te naan sénégalais ngeen xippi ngeen xool xam nga Sénégal dara wu fa. c'est un petit pays de 17 millions d'habitants Moi, je me dis même 17 millions d'habitants c'est un faux chiffre waa ANSD dañoo juum ci seen sens ci seen recensement on n'est pas 17 millions on est 100 millions on n'est même pas on est on est même pas 2 millions Sénégal est un petit pays lu mu rëy rëy rëy c'est un petit pays tout se sait.

Vous confondez une connaissance et une amitié. Tiki, n'est pas mon ami. Une amie, c'est quelqu'un avec qui tu parles tous les jours. Une amie, c'est quelqu'un qui que tu vas chez elle. Une amie, c'est quelqu'un qui vient chez toi. Une amie, c'est quelqu'un avec qui vous partagez des choses. Tiki, là, on a partagé quoi Absolument rien. Griot, c'est un griot, c'est une griotte. Ben là, je l'ai appelé parce que j'étais en train de me marier. Je lui ai dit, écoute, je me marie. J'aurais besoin que, que tu viennes m'aider dans la préparation, etc., etc. parce que dans tous mes mariages Cikalo bi a été là ba may ba may sëy ak Mouhamed Mbaye Cikalo bi ñëw na sama mariage ma baatare ko rëy lu rëy moom ak Mbacu Ndiaye. vidéo yaa ngi ci internet bi ñu sama téléphone ku ci génn di ma jël ko posté ko sama page Cikalo bi doo sama xarit doo sama àndandoo sama lawbe nga woon mais nga woon. dootoo ko nekkati parce que ku la war benn yoon da lay war ñaan ci ma du ma ànd ak naa fekk du ma ànd ak hypocrite la nga waxoon yëpp dégg naa la nga def yëpp dégg naa ko xam nga yow boo rusul bi ma jur xam nga yow doo ñëw sama kër sama yaay teral la sama yaay ak yér la dugal la këram dugal la biir néegam ne la Tické dénk naa la Nabou yow ak wuy comme ay mag ak rak def ko rak ne Nabou mii sax est-ce que nekkul nekkul law bi parce que Nabou man ni ma ni ma ni ma calmé ak Nabou ni mu ni mu bëree ay feem est-ce que Nabou du law bi loolu yëpp mu ngi sama snap Tické law bi nga ñëw sama mariage ma may la cinq tissus ma may la ñaari brodé pire buy jaay buy jar benn bu ci nekk cent cinquante mille te benn bi gis naa nga sol ko mariage xooma kan mooy bu rouge bu am perte dentelle la ko may te boo ko weddee ma génnee preuve parce que sama kër dafa am ay caméra ma génnee preuve yi munoo weddi na bu preuve te mu sama bàyyi boo weddee ma génnee nan ngay ñëwee sama mariage man ma habillé la habillé la cinq tenues tissu bu nekk jël un cent jour boo ñëwee sama kër ma may la 35 ba ma may la 50 jour dénk lekk bi ma ma la ma ma la dénkee dëxin bi dëxinu xenetaan bi lan nga def dëxin bi kenn lekk ko man bama ma xam nga man borom xew bo ci xew ak yi man duma xew attention moi je ne mange pas dans les événements même dans mon mariage je n'ai pas mangé parce que personne dafa am man dama xam dëkk bi ma écoutez moi je travaille très longtemps au Sénégal je connais le pays et rien ne me ferait gagner dans ce pays là dara ne ma dans ce pays aujourd'hui je vais dire les grandes lignes parce que à partir de la semaine prochaine je reprends mes lives dans un autre contexte mais il faut que vous

man Soumboulou Bathily moo tax ma xam la Soumboulou Bathily moo ma la présenté Tické Laobé nga ñëw sama kër musoo ñëw sama kër sama salon nga doon ñëw ñëw nga sama salon une fois ànd ak Soumboulou ak euh, benn Gambienne Gambienne fan sa Pape Diouf bi ngeen ñëw sama kër yéen ñett ñooñu yéen a ñëw sama kër euh, yéen ñëw sama salon ma may la ay ongle pédicure manicure may la parce que xam nga doo fay ay ongle 35 ndax yoroo ma may la ay ongle Soumboulou dafa fay mais yow fayuloo vidéo baag sama téléphone bi ngay bisumloo nekkee ci oto bi yow nga nekk ci oto bi ngay ni wax xam nga dama snap mu ngi sama téléphone boo weddee ma génnee yow nan ngay ñëwee sama xew man borom xew normalement yow man maay xew yow yaa war a indi say présent indi say cadeau indi na mais indi lan nga indi dara nan laay xewee habillé la man dama la habillé ba habillé maire bi ma jam xam nga yow yaa ma indil maire bi ma jam sama kër dama la habillé ba habillé maire bi ma jam ba may maire bi ma jam plus de 100000 ana jam ak 100000 dama baax te xaalis fu ma fekk fa la may bàyyi moo tax duma ko ñaar tike yow koo ma mës a présenté teral naa ko ba nga indee jël boobu nekk ci Seneweb comme Sene People nu mu tudd euh, Fatou laa Fatou Fatou mbay ba nga Fatou mbay man Fatou Mbaye mosuma ko teg bët xanaa ma gis ko peut-être télé yow yaa tax ma teg Fatou Fatou Mbaye ba mu jëmee sama ko lu ma ko may dama ko teral amul koo ma mës a indi sama kër te teraluma ko ci sama xew parce que mosoo ñëw sama kër sama xew nga daan ñëw si sama xew nga ñëw sama kër parce que xew bi moo ko laajoon nga ñëw sama kër ne ma lii ak lii détails yi ñu koy gérer et je te remercie parce que sa temps la bu la neexoon doo ko def côté boobu nag dama la ciy sant parce que bàyyi nga sa lépp topp ma ci sama xew mais da nga ñàkk gore bi gis nga àdduna tikk dama lay wax ñaar nit dangay ngay gore te gis nga nit ki boo lekkee alalam ala kulli aal mënoo ko wax lu ko saf te mënoo ko def lu ko metti man loo ma def lu ma ma def sama xew

te or que ticket event la event mooy événementiel jàngoo ticket jàngoo te man su ma ne ko xam nga yow sa jàng dafa wees parce que amoo jot ku amul jot toppatoo boppam kooku amul jot jàng amul jotu dara yow toppal tale yi di wër topp tale di wax mais gis nga man ak yow bokkuñu niveau yow yaa ngi ci suuf man maa ngi ci kaw on n'est pas dans le même niveau ndax li ma def Sénégal xaaj bi defoo ko ticket mosoo am ay employés gisuma nga am employé Le dëkk dafa bax la nek un acteur de développement tu n'es pas un acteur de développement ndax ko andal xass nga ko ko andal wor nga ko sumbulu mi la fatone keureup defal la lu nek ya taxaw fi ne mosoo ko xam mais man duma sumbulu de man je suis pas sumbulu man damay dugg say dis war na léegi man ak yow duñu ben moi je suis une chef d'entreprise et madame Berga toi tu n'es nullement une personne lawbe sax duma ko tudd parce que lawbe yëpp mel ni ñu yow yow yaa gën a sa askan yow ya gën a góore

tiki entrée maanaam badge ji sax badge yi sax tiki event si la woon yow yaa doon def ji yi badge yow yaa ko defar maa la jox sama xaalis ma defar badge yi ku yow nan man man nan laa nekk man borom xew ku bëgg ñëw sama xew jaar ci yow parce que dama la wóolu mais yow ku doyee di yow mato matoo yow matoo xew bay mat événement loo sponsor dangaa mën a sama xew xew bi Bergane pour sponsoriser de A ba Z mës ngeen xew boo xam ne lekk yi dafay sama xew lekk yi dafa def Je xam nga pas ce que inventé parce que les sites sont là ni fa ñëwoon gis nañ ko xew dama sañse man ba may commencé man li ma ci sama sama c'est na la ci s'en mariage man dama sañse ba yëre yi des dama sañse ba mu Bay ma ñëwoon plus de six tenues ma fay ko huit cent cinquante mille 850 rek huit cent cinquante mille fay Pape Bay te parce que tailleur bu am jom la te man man Pape Bay maa ngi naan lépp lu le futur le jeune tailleur. de talent en or yal na la yàlla fay ca la fay say loxo Pape Baye ñëwal ma ma fay ko 850000 ba ma koy fay 850000 lenn saw dana ii nagu 850000 bëri la de ma ne ko yow xew du tuuti borom lay tolloon man lan mooy 850000 ci man te man may sol may may sol ay tissus yu am valeur tous les jours tous les jours man xàmmee ma xew ak budul xew man li may sañse tous les jours moom nit ñi di sañse di dem xew ayam Nabou Dash bu leen fàttee man may kan ayam Nabou Dash

nit dañuy bàyyi ñu ko fekk liggéey liggéey bu rafet ñu ñëw bëgg ko yàq loolu leen a yàq ngeen maa mën a yàq yéen si ka loobe si ka yow bi yow gore di woo amoo ngor amoo ngor amoo ngor mais nag laal nga laalaaki xam nga dangaa amoon buzz dama la koy wax ah tey ngay tey ngay fay ba faw te man maa la ko wax yow tey ngay fay ba faw maa la ko wax téel li ma wax ni daggal côté tey daggal vidéo bi ma la wax daggal fi ni ma la wax yow Tické Laobé tay ngay fay ba faw ma la ko wax amo affaire ak man de yaa am affaire ak God yalla nga amal affaire yàlla da ne ko defar lu baax ko war nga rus di saga ndayam yow nga ñew sama kër sama ya ubbi la buntu kër nga jakkalo sama dem saga sama nday man duma saga sa yaay te li ma la tontu par message ñu sama dama ne la Tické man duma saga sa yaay ba nga ñàkkee sa yaay dafa yàggul te yaay dafa neex ci xol xam nga yow sa yaay dem na man sama yaay mi ngi dund te lolu togolu yàlla la man rayuma kenn yàlla moy rayé kon yow ba ngay ba ngay saraxal sa yaay danga ma wo téléphone nag damay saraxal sama yaay yoruma dara sama téléphone dafa am enregistrement lu way wax ak man na leer dama koy tegaat jour ba ngay saraxal sa yaay danga ma wo téléphone ma wéeg la cinquante mille la xépp nako ko nga saraxal sa yaay nak man munu mënuma la defaral sa saraxu yaay bu pare tourné di saaga sa yaay ma li ma la wax lenn la time is money time is money plateau télé yi ngay dem kenn fayu la plateau télé dañ lay use parce que dangay wax wax gu neex ñoom ñu am ay buzz mais boo nekkee nit ku muus plateau télé boo war a dem dañ man man lu tax man duma dem plateau télé man kañ ngeen ma gis man mosoo leen maa gis plateau télé sama page Facebook moo raw télé audience bi ma am télé yi amuñu ko man site internet yi dañuy xëy di ma bind tous les jours tap sur Google tap sur Google I am every time on the internet man soxlawuma woo site ne ko kaay wax kaay jël ma ñoom dañ may jël naturellement parce que sama image dafa jar bu doon man Ousmane Niang laa sama image jarul site dañu tëdd dañoo tëdd sama image anytime Nabou Dash Nabou Dash Nabou Dash parce que Nabou Dash that's the that's the that's the that's the mark that's the brand that's the famous fucking I am better than you always bu dee liggéey du ma ci du ma sa morom duma sa moroom ci liggéey bu dee tabe ak maye du ma ci sa morom bu dee ngéwéle duma ci sa morom bu dee ruube maa la dàq ruube bu dee ambiance maa la dàq ambiance bu dee xeex maa la dàq xeex bu dee xaalis maa la ko bu dee taar maa la dàq bu dee tey maa ko gën a setle bu dee sañ sa nag waxi noppi <laughs> I am fashion ticket next time booy xeex da xeex ak sa morom yow da ngay xeex sa parce que war ngaa ak sama borom kër ni mu la sagal yow sama borom dala sagal bergu dalaa sagal dalaa sagal ndax sagal la weesuwul ingénieur bu toll ni moom dina décroché téléphone yow yaay kan ba sama ingénieur dina ci téléphone dama koy woo sama téléphone di la ko paas ngay wax ak moom ingénieur di wax ak yow yow dangaa mës a gis ingénieur bu wax ak yow c'est la première fois de ta vie ingénieur di wax ak yow nga ne deux jours de mariage dañ ma bàyyi yow foo ne est ma yow foo ne foo ne est Yakan Sagenti is true. You dreaming. You need to wake up. Wake up. Can I give you money? Wake up, wake up, wake up. Babe, you need to get up and wake up. They go on it. Magio, that's the end. As na dootul neex bu ma xew la woo la parce que yow sikk nga luñ la dénk nga sàcc ko samay ginaar waxi noppi samay ginaar xew gisuma ko are gonna gisuma ko doylu woo ci li nga am mën nga fet mën nga dul mën nga wër salté nga xéñ nga ma la wax li du da nga xam da nga né da nga dem sécurité urbaine demal sécurité urbaine xam man sénégal yow mëno tax ma ñëw sénégal no way lama def sénégal xam yow amo kër sénégal yow amo titre foncier yow bu manam bu président son excellence Macky Sall don sensibiliser population euh, peuple manam citoyen yi wara to ak yi wara a génn yow da ngay bok ci ñi génn Parce qu'un bon citoyen est un citoyen qui participe au développement de son pays. Économiquement parlant, intellectuellement parlant, culturellement parlant. Un bon citoyen est un citoyen qui paye ses impôts et ses taxes. En taxe, il y a un INEA, un registre de commerce. You don't know nothing about entrepreneuriat. You don't know l'entrepreneuriat. You don't know à 7 heures du matin. Stressé, il faut faire un salaire. You don't know pas you don't know employé. Je ne sais pas employé. ah nabu nii nabu nii man at least maa ngi xuloo am pour ay kooku lool yow sa yaay dund na bare te teraloo ko tikke yow li la romb sa àddina dafa masaga tànn la te danaa la nag benn affaire laa lay wax affaire lay wax di wax nga wax mais ma ko defati sa àddina doo too ko defati that's the end for you Do too ko defati xam naa sa kër maa moyen mal la capable mal gëna gën a rakkaaju maa la say yow dégg na nga sa xolal waxal lu la neex caga la tu tu amul problème at least caga laa mais je suis madame Bergane yow musuma gis fuñ la xewle man musuma ànd ak yow ñu ne mu jëkkëru ci kéñ wala ak sa jëkkëram yow ànd sa jëkkër est-ce que mus nga am jëkkër xam nga am nga do am sa jëkkër gëna sey photo mariage ñu xor man musuma la gis sax ñu ne tikkee ak sa jëkkër man at least ni dina rom ñu ne ak sa jëkkër na bu baangi ne di dox di waax yow ànd sa ak sa jëkkër ku jur sa dom

te bul faté nak boy cap six la man boy sikap la xam nga yow nga ni boy charoy ga man boy sikap la màggee charoy gaar ma la gëna sañ génn saga sama yaara ñu jam la ma la wax ni génn <laughs> bu la nexé nak génn tontu ma parce que lool sa liggéey la yow sa das yow business sa liggéey moy génn tontu nit ñi nii nii mais suma déggé déggee nga saaga ma ndey dootoo ko defati na la nokul en direct dañ lay filmer nokul ba ma sama page suma ma la ko waxee nga war ko gëm maa la gën a capable te maa ëpp xaalis fuuf ba sa morom maa la ëpp moyen ñeme ko génne tant ma rek tant ma encore tikeloo ba yaa ñàkk fayal say morom yow 45 ans ngay wër ci tale yi say réew yow say réew yëpp dafa réew yu bëri xanaa nga soo samay sil sil dafay classe fashion di génne sa kanam mais yow say réew say yow sa ñaari bëñ dañoo umul ma yow say dentition sax xoolal lii mooy dentition yow dentition yi comme ku toog 100 ans brosse yow nga bëgg sa gémmiñ xam ne benn góor mosulaa fëlante naan man ngay xas koy xas man koy xas balaa def ni man def nii da ngay def nii da ngay sa seet. gaañ ko pire ah, vraiment pas bi balaa ngay xase voilà balaa ngay xase da jël seetu sa bopp voilà courant bi ñëwaat na. pédicure balaa ngay xase da jël seetu nii comme nii. nga xool sa bopp xool ki ngay xas xool sa bopp la réponse est dans ton miroir réponse yi nga bëgg mi ngi ci sa seet utal seetu nga xool nga def nii nga ne man kan laay xas kan laay xas celle qui a cette entreprise qui bàyyi Europe ñëw Sénégal pour le développement de son pays kii di def ay don tout qui temps kii di social xale bi ndeyam gërëm xale bi tabaxal yaayam quatre étages biir Sénégal xale boobu nga bëgg xas oh my God doo ko defati ça c'est pour toi et je te répondrai plus

baa ma boole la président Sédane woon nga dem tàggal ko ay baaxu maamam yaram mu tàng mu may la nga ñu def tabaxal sa yaay kër relation yi ma am nag boo ko bëggee yàqal sa bopp nag yow yaa ko nit da ànd ak ku la amal njëriñ néew ma nag bu ànd ak kenn ànd la ku la neex mais man booy ànd ak man dama fiir man ku bàyyi danga koy bàyyi lami de moo ne ne nii et moo ne ne nii booy ànd ak sama noonu dama lay bàyyi dama ànd ak kenn koy ànd ak samay noonu soit dangay ànd ak man soit nga ànd ak sa noonu mais sama noon mais Papi Jour maanaam mbir Congo gi rek amul géwél Congo amul géwél fii amul géwél Congo amul géwél damaa bëgg nga ne géwél président son excellence sasu fu sasu géwél la nga ne ko sasu sa maamay di wak di borom Congo borom kii sa ku lu président yaay ma yo yow defal attention si li ngay wax defal attention si li ngay def lolu moy pour la bande des losers mu la ci bande des losers léegi je reviens à mes fans euh, pas d'abord à mes fans je reviens à mon état d'esprit li fi je a xew récemment Nabou Dash di saaga Nabou Dash nii Nabou li ma bëgg ngeen xam mooy man Nabou Dash samay fans laa koy jël en témoin mosoo leen maa gis ma saaga amul Fatoumata Dansogo saaga na ma tata Fatoumata Dansogo Pastef euh, Amazon Pastef saaga na ma tontuwuma ko tontu naa ko d'une manière responsable sans ma saaga Khalifa rappeur sama mbokk taalibe baay boobu maa ngi la naan gàmm gi moom du ma la seetaan woo ma <laughs> saaga na ma fii tontuwuma ko dama ko dem porte plainte parce que loolu mooy yëfu citoyen loolu mooy yëfu kilifa loolu mooy yëfu grande dame saaga yi ma nekkee woon jamono ji neewul woon man nekkul woon man normal dañ ma xabtaloon def ma affaire de parce que Sénégal ñoom daal noonu la rek jiw mi ngi lay déranger tam naa ci sëriñ bi mais naa leen encore une fois sëriñ du yàlla maa mën maa mën yi duñu ay yàlla parce que maa mën a ngi nii yàllaa ngi nee yàlla mooy def lu ko neex ci jaamo nangu rek wala bañ nangu rek wala nga dee ni li yàlla def ci sama jëkk yi commentaire bu négatif du ko dindi saaga du ko dindi désabonné wu du ko dindi clan de mouton du ko dindi dem ci ay Gambie dem ci Casamance dugg ci maam ni du ko dindi dugg ci jaleñ ñi du ko dindi parce que ku am jaleñ rek jàpp ma ne jaleñ dafa bëri façon ku ne ak say jaleñ dëkk bu ne am na ay mystique

te dina gën day neex parce que boo leen yemoon rek ci tas sama sëy te li may parce que sëy moom man li may wax rek man sëy moom duma ci perte sama temps man sëy duma ci perte sama temps duma genre boobu jigéen yoo xam ne dañ leen torturer ci ay sëy non moi je suis une femme je suis une femme intelligente je suis belle je suis productive j'aimais bien je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie pour manger je mange suffisamment à ma faim parce que je travaille à la sueur de mon front je n'ai pas besoin d'un titre pour exister. J'ai le nom de mon père, que je porte dignement, le nom Québec, que je porte dignement. Digne, je suis digne. Je suis la fille de mon père. Donc, étant la fille de mon père, je n'ai peur d'absolument rien. Je suis une métisse congolaise, malienne, sénégalaise. kon yéen xamoo leen fi ma bokk pour bëgg maa yàq mënul nekk échec total te yow Tické yow yaa véhiculé action bi ni que Nabou dafay volé man damay volé yow yaa wax loolu doo wax dof bi dof bu pare di volé Tické yow yaa gën jekk ci volé yow yow yaa xam volé yaa xam fu ñu koy jëndee yaa xam ku koy def yow yaa xam ku koy def. parce que gor deug gor deug deug deug deug yow bo nekkone gor deug deug deug deug xam nga gor deug du fekk adversaire bu nekk à terre bu paré mu jël paaka diko dogal doggali da ngay fekk sa adversaire nekk normal xeex bi neex mais da nga fekk ñu attaquer ma mu nekk ci situation yu met nga gëna di wax mais leer la jamono ji tay la gëna tay la gëna bien boy xeex ma da ngay xeex nit nit ki la personne doit être en état de se battre. Mais moi, je n'étais pas en état de me battre, ni de me défendre. Parce que j'étais malade. J'étais atteinte mystiquement. J'étais atteinte mystiquement et je l'avoue. Et je le reconnais. Parce que tout à quand tu es un j'ai frôlé la folie. Je n'ai pas duré dans la folie parce que demain, je morte. mais j'ai frôlé la folie. Et ni me connaissent, xam nañ seen bopp man xam naa leen ni mu leen wax rek mooy patience bu leen génn di wax

mais après gis nañ kii lii li dal parce que tooñ bu gàllaaju ken, loo am gàllaaj gàllaaj dañ la nan ah bul dem tooñ on te dit tout le temps gal, tooñ bu gàllaaju ken, parce que bo takay ay ndombo takk ay téere di sangu di def n'importe quoi tek ci dem fekk ko xamne defu la dara waxu la defu la nga dem bëgg ko def ay affaire sa gàllaaj ça sa sert sa ça sert plus à rien et je ne pardonne pas et je me venge et je suis en train de me venger et ils sont en train de le sentir ils elles sont en train de le sentir. Et elles vont bien le sentir. Parce que je ne vais pas reculer sur ça. On ne joue pas avec la vie des gens. Vous ne pouvez pas jouer avec mon image. C'est impossible. Insultez-moi, faites tout ce que vous voulez. Mais on ne touche pas à mon image. On ne touche pas à ma famille. On ne touche pas à ma famille. On ne touche pas à ma mère. On ne touche pas à mon image. Parce que mon image me permet de vivre. C'est grâce à mon image qu'aujourd'hui, je peux me vanter d'être assise à la table de tous les présidents. Il n'y en a pas beaucoup au Sénégal ici, les gens qui parlent de droite à gauche. Qui Qui a déjà fait ce que j'ai fait Des gens de ma génération. Qui Qui Dites-moi qui Dites-moi qui Je ne parle pas des filles de papa, des fils à papa et des filles de papa. Moi, je ne suis pas une fille à papa. Moi, je ne suis pas. Je suis une fille. Je suis venue de nulle part. N'est qu'une immigrée malienne congolaise. Je suis arrivée au Sénégal parce que mon père est sénégalais et mon grand-père est sénégalais. Ma grand-mère s'est mariée avec un Sénégalais. Salom, salom, pire. Donc étant une fille d'émigrée, si je peux faire du Sénégal, si je peux apporter une pire au Sénégal, et les Sénégalais 100% de père et de mère nekk Sénégal réunis ñu gontu ñu amuñu belle influence positive nous dul wóor Il ñaan a 1000 francs a même 1000 francs il y a même 2000 moi je suis pas ça moi je suis l'excellence en personne certes que tout le monde a ses défauts tout le monde a ses qualités mais moi je suis pas n'importe qui dans ce pays là et personne ne fera ne me fera croire le contraire mes, réalisations sont là. On ne peut pas oublier comme ça ce que j'ai fait. Je ne vais pas l'accepter d'ailleurs. man damay volé man dara jarul may tux dara dara jarul ma naan xam nga lu je suis quelqu'un de sain d'esprit je ne peux pas moi gérer de l'argent avoir des entreprises nekk ci samay activité soxla sama xel di vol pour lan may volé yow yaa xam volé yow moom yaa xam volé parce que yow yaay délinquant yow yaay wóor di taxawaal yow yaa xam volé mais man xaw ma ko c'est une diffamation te xolal togal fexeel nak ba indi preuve li nga wax que man damay voler fexeel ba indi ci preuve au cas contraire li lay xaar yo xam nga ko duma la ko wax loolu ça s'appelle une diffamation man sumay wax damay tek ay preuve nit ki bu bëggee jug sax dina ne ah ki de indi na ay preuve xaaral ma toogaat dañ di naan day voler day day ki man do na la kuy voler pour lan may voler je suis bien je mange à ma faim j'ai une famille aimante j'ai un mari aimant j'ai un fils qui est magnifique. J'ai une situation financière qui va. Je vais prendre le volet pour aller où Tes mots m'ont blessé. Tes mots m'ont blessé. Parce que tu aurais dû répondre. Moi, je t'ai seulement dit, va travailler. Je ne suis plus avec toi. Mais j'ai le droit à venir à J'ai le droit à venir à Tu t'es importé et tu as dit des choses qui ne sont pas vraies. Mais ce que je te dis, toi, reste patiente, Reste patiente. xam musuma la wacc reste patient à travers toi je vais apprendre aux sénégalaises que c'est pas n'importe qui ñu jël seen loxo di ko bëgg ruux c'est pas tout le monde xam nga man mystique bu ma la bëgg atteindre dama lay yàqal rek parce que déjà sa aduna bi dafa mélanger comme soupe kànja yow ta vie est mélangée ci kélo elle est mélangée comme soupe kànja kon suma la bëggé doli choono rek bu ba yalla sax mëna ma ci mère dama lay bay ak yalla te di la naam nag leneen loo defati rek maa ngi sa kaw maa ngi la seetaan bu baax maa ngi la déglu bu baaxa baax waxal lu la neex mais ne m'insulte plus de mère si tu t'avises à le faire non doo ko defati dinaa la yërëm nag say mbokk dinañ la yërëm say mbokk nak buñu ñu nekk ci laa nañ la ko wax bay ki mu dem bay wax gérer sa bop gérer sa vie mais bay ma ma dem tàllalal mag yow ñu yoon yaa ni nii maa à la folie oui elle est dépressive a une dépression j'ai lu énormément de commentaires sur ça. Énormément de commentaires sur ça. Énormément. Et cela m'a montré à quel point les gens sont méchants dans ce pays-là. Les gens sont pressés que le malheur amkoumoudal. Vous êtes trop pressés du malheur des gens. Vous êtes tellement pressés du malheur des gens. Trop pressés. Ah, a la dépression, elle est là. Ah, elle n'est pas bien, elle est là. Ah, non, non, non, non, non. Rien, ce n'est rien d'autre que de la simple et pure jalousie. Simplement. Parce que moi, Nabou si je vois une femme en détresse, je ne vais pas venir me moquer d'elle ou bien venir plus, plus dire des choses mauvaises. Non, j'essaie de l'aider. J'essaie, même mon ennemi, je me refais contre parlez, continuer à ennemi avec moi. Mais une personne qui, a, qui, a, qui, qui, qui, est, qui est en situation de détresse, ce n'est pas le bon moment de venir plus l'appuyer dessus.